jërë ngeen jëf mbokk na di ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bi leen nuyoo mbokk yi ziar leen Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante ne actualité la ngeen mën koo am ci réew mi. à temps réel dañ koy doox kon ak euh, photo ya nga xamante ne kon ma ngay wéy di circuler ci réseaux sociaux ya ginnaaw bañ ko gisee moom chanteuse sénégalaise bi di Mia Guissé mu mel ne rek solu solu kuy mariage ginnaaw kon ma mu ko posté ci Instagram am loolee nag daal di attiré kon attention internet ya nga xamante ne ña ngi koy topp waral ñu samp baaraamu laaj daal di rek ne kon Mia ndax da doon marié am déet waaye rek kon mu mel ne ñu fenn foo xamante ne kon euh, affiché na wala sax mu def kon madame wala loo xamante ne rek indi na xel ñaar bu baax a baax rek ca xelu internet ya loolee itam daal di law rek ba ca snapsatu kii di Kange Style ginnaaw bañ ko gisee kon mu defaral ko boppam be moom itam posté na ay vidéo ca snapam waaye rek daal di ci yokk kon vidéo wala son yoo xam ne kon day mel ne que Miami da doon marié leen nag waral kon kenn ku nekk mën ngay yëy di yàbbi ca mbir ngir bëgg cee am lu leer waaye rek photo ba nga xamante ne kon mën nañ ne attiré na attention followers ya bu baax a baax mooy ba nga xamante ne kon coiffeuse coiffeuse boobee dugal na ko daal di ciy def kon ab alliance loolee nag daal ne rek kon ndax Mia da doon marié comme ñenn ñi nga xamante ne noonu lañ koy defee daal di marié en douce wala rek ci suuf ngir bañ mbir ya jëm ca kaw en tout cas internet ya ku nekk ngay laaj lu xew waaye rek ñu bëri rek tey ne itam ndax du buzz boo xam ne créé nañ ko ndax récemment gis nañ rek euh, kenn ku ci nekk di def lu ni mel ngir euh, waajal lenn li ndax Mia clip lay waajal wala dafa am lu muy waaj lu ci mun munti am mbokk yi Medina TV day wéy di leen ko toppal lépp loo xamante ne am nañ ko ci ci gën a leer lu gën a wóor ñu ñëwaat ak yéen ci num gën a yaatoo loolee rek kon mariage la ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax rek lép loo xamante ne eh, eh, bëgg na ko ca union boobee suñu borom defal ko ko ginnaaw bañ ko gisee woon kon mu marié daal di rek euh, euh, marié woon kon ak artist bii di No Face ba yàlla may leen kon benn doom bu jigéen mu mel ne kon mbir ya divorce da caa amoon loolee nag kon waral sénégalais yi daal di koy jooyandoo kon tiis boobu nga xamante ne daloon na ko bu baax a baax rek daal di koy félicité ci post yi nga xamante ne gis nañ ko waaye lépp loo xamante ne kon am na ci lu leer wala lu wóor euh, dinañ ci ñëw ak yéen ci num gën a yaatoo jërë ngeen jëf. envie de bi. gën leen pare. maa leen gën a pare. maa leen gën a pare. xale bu taaru kaa ñu bëree. kaa ñu bëree ku mën daan. ña nga maar kaa ñu bëree. kaa ñu bëree. is what you do. ko jëm mi nam jëm sin wi ma yaaya baay momo